mbokk yi spécial baa ngi noonu Milkzo toj na nen waa Ramel tojul toj na nen yàq cuuj yàq omelette ak leneen la cee ànd mbokk yi Milkzo la Milkzo kii Kër Massar mbooloo waaye moo ngi daje ak mbokk yi fëgg la moo ngi daje Feugeleu école de lutte olympique bu Ngor Feugeleu Milkzo abi bi laaj na ay jigéen laaj na Milkzo ba xam pare na laaj na Feugeleu ba xam pare bi sifflé na Feugeleu tàllal na juróomi am lu muy leemu waaye Milkzo mbokk yi moo ngi am lu muy leemu Feugeleu a ñëwoon ginnaaw kàbbaana moom ñoo ngi lewaatoo ci diggante Feugeleu Milkzo Milki Zo leen jàkkaarloo Feugeuleu moo ñëwoon ginnaaw Feugeuleu ngi demee wet Feugeuleu Milki Zo Feugeuleu Milki Zo Feugeuleu Milki Zo Milki Zo dox na ci kawam Milki Zo dox na ci kawam maa woo na ko bàyyi maa ngi esaat Feugeuleu Milki Feugeuleu cokkaas na léegi gauche droite Feugeuleu dañoo bëgg a xeex Diama jël ko ñoo ngi xeex Feugeuleu Milkzo Feugeuleu Milkzo xale yaa ngi xeex gauche droite waaye Feugeuleu daa mel ni koom yi baax na da koy xool Milkzo daw na sàcc ko waaye dugub ba baaxul dugub bi baaxul Milkzo Feugeuleu cokkaas na ko léegi eh, Milkzo atul Milkzo Feugeuleu bu ay pexam sottee boo saaganul doo mu daanu dina ci am yoon Feugeuleu ñoo ngi xeex Milkzo nee naa la ngay du Feugeuleu booy xeex da ngay xool waaye boo bëggee gëm bëgg sànni ay coup boo xippee la ngay gis du la neex Feugeuleu Milkzo Feugeuleu doon na ko guus lekk mu dal ak droite Milkzo baatul la doo nga daanu Milkzo Milkzo mbokk mi boo xool jàppante bi la gën a bëgg cey làmb combat spécial baa ngi noonu Feugueleu Milkzo koor nañ ko door na koy pay kit bu dal baadu ko door mu daanu baadu ko door mu daanu Feugueleu Milkzo ñoo ngay roko si suuf Feugueleu Milkzo fàq na ko Milkzo na Feugueleu Feugueleu bañ Feugueleu Milkzo xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi jàppante nañu Feugueleu Milkzo Feugueleu dafa mel ni dafa bëgg a tenter action xale yi dañoo waane bëre saq na ci gaña gi moom foog la Milkzo ngi dóor ay rokas Milkzo ngi dóor ay rokas suuf waaye foog la jàpp na ñaari loxoom ci ngemb su loolu maay Milkzo sama loxo bi dama wut fu ma ko yor waaye booy xool foog la Milkzo jàppul ñaari loxoom yëpp ci kaw baadu la fàq mbala mu wéyale la tey làmb foog la muy gisoo sëggu na na ko tegal na ko sees da lay woon daan na la daan na la foog la foog la moo ngay joow waaw waaw waaw waaw Adama jëlee ma public ba. def Adama jëlee ma kooku daa damm sees bi jëlal moo xoolal la mu def xam nga ne lii mag mu toll ni yow fekk leen sa biir nawle lii biñ ko defee yàggul. nga jël 16 damm ko waaye dina la coûter cher doo doo ko defati